singali gi ñu singalee taskatu xabaar yi fii ci mu réew di Sénégal ay signal yu ci mel ne Sen TV Walfa TV eh, ginnaaw ba gars yi mere nguur gi singali eh, ñii di groupe de presse yooyu le am signal bi ñetti fan yoo xam ne kenn mënu leen a seetaan mu doon lu doy waar ak song gi leen di song jamono yi eh, journaliste yi daal mu mel ne jamono yi ñi ngi ci jiixi jaaxa ak fitna goo xam ne moo nekk seen birir mu mel ne fitna googu ci média la yéenekaay Front de Terre bi dellusiwaat wax ci plainte contre x boo xam ne ñii di waa appel dinoon ko génnee fas yéene ko jëmale ci ñenn ci ñoo xam ne rek dal leen doon tëkku waaye tamit di jéem a jël seen ko bakkan moo tax yéenekaay bi dellusiwaat ci média yi que fitna yi ñuy dund média yi nag mu mel ne am nañ ci wàll nag bu ñu demee ba jàkkaar xale mu leen di ko ab taskatu xabaar naa leen lii ngeen koy laaj la leen tontu mm-hmm. yenn saa yi nag dafa mel ne rek waxambaane buñ ko dabee ci yoon di ko singili nag ñàkk faydaam da koy indi yenn saay fulla da cee baax ci liggéey bi ci doxit wala daal euh, ñu wax ci mm. source a euh, yéenekaay bi di source a wax rek ci li toll ci fukk ak juróom-ñetti milliards yoo xam ne rek daal euh, jëm ci lii di concession autoroute euh, Dakar Diamniadio euh, xaalis le kenn xamul xaalisu lu mu doon moom li yéenikaay bi di laajte di yéenikaay bi di source a source a del siwaat ci biir Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr mu wax rek ni est-ce que mën nañ dem ba egg ci test ADN maanaam ku ne ñu jël leen loo xam ne mi ngi sa biir yaram buñ ko génnee jéem a xool dëppale ko ak ni aji ne dafa ëmb am déet bu boobaa dina dinañu xam daal mbir mi fa la féete waaye boobile test est-ce que Sonko dina ko nangu am déet yéenikaay bi dellusiwaat na ci bu baax. Vox Populi Sonko moom daje ak Adji Sarr soxla na namul ndaxte def ko nawle ndaxte nag euh, ki ut réew est-ce que di nga def nawle koo xam ne daal peut-être sox ñu mu soxal bariwuñu yéenekaay bi dellusiwaat ci ndaxte Sonko corps à bi lay bañ ak jàkkaarloog moom. teg ci euh, giñ ak waat gi ko Adji Sarr woo Sonko du ko ci fekk benn yoon ndaxte nag noonu loo xam ne bu ko ci fekkee mel na nag moroomam la le quotidien yéenekaay bi di le quotidien wax rek ci sonk ak Adji Sarr mun a procès verbal maanaam dafa dikk ci wàllu yoon ak procès verbal maanaam mbir mi nekkagul rek ci kanamu tribunal bi waaye nag ay kàddu la ginnaaw ba Sonko waxee euh, Adji tamit wax na mu mel ne mbir mi daal eggagun ca tribunal waaye nag fi mu ne nii ku mu ne ci ñoom. da ngay jéem a wax rek ba jéem a yey askan wi mu mel ne ña ngay porte presse ñoom ñaar. Euh, critique euh, wax rek ci nii le viol va accoucher un bébé maanaam genre laaj la def mu ne est-ce que ñuy wax ab ëmb mun na caa sosu ba ab. Euh, yéenekaay bi def ak laaj jëm ci mbir yi Sonko ak Adji Sarr mu ne aji moom vierge gi muy wax naan amul moom daal da dama dafa am dafa am ndaw am na baat am na baat bu sax bu mu ko waxee moom kooku lay di Adji Sarr. Mhm. jëm ci mbir mi na moom dafa fees dell. Mhm. <laughs> dafa fees dell eh, fees na am déet yërekaay bi laaj boobu lay laaj waaye mu ngi tey teg naan uf basta sonn nañu ci kuréel ak état d'urgence tey lay jeex takk mu mel ne Sénégal ak 19 mars danoo am taarix. Mhm. Euh, euh, place Tahrir Seydou Lamine Niass 19 mars Abdoulaye Wade 2000 19 mars tey ji la yeewi lii quotidien <laughs> lii quotidien wax euh, ci Macky yeewu na ah, gaynde gi doon nalaw organi opposition bi ma ngay organisé wu ginnaaw ba réew mi yëngoo président Macky Sall ne dina indi ay pexe ci ni réew mi doxee opposition bi nag ña ngay wu di defaraat seen ko toogaay ndaxte jamono yi danoo mome vent moo tax nag ñu ne rek bu la yàlla tàccoo te feccoo doo feccati bu mukk moo tax opposition am ña ngay waaye nan moytu génn géew bi direct news news nag wax ci réew meek yaxanal gi ak korkoral gi nguur ko Macky Sall gi fas yéene taxawee ci jamono yi yéenekaay bi def ak laaj ne euh, lan moo waral tey ji président Macky Sall toll ci korkoral ak lii di yaxanal alalu réew mi moo tax yéenekaay bi ma ngay fesal kii di ministre bi ñu dénk wàllu jibaay réew mi di finance di Abdoulaye Daouda Diallo. Dakar Times. Euh, ab Dakar Times wax ci pandémie des faux médicaments ci Covid 19 ndaxte Covid 19 boobule bari na ci loo xam ne tey jii dañ koy wax naan da koy faj te heure bu ñu ko indee rek mu jur werante foo la am déet yéenekaay bi def ci gëstu bu yaatu waxtaan ci ak ay professeurs. professeur ni ko Dakar Times di di ko defee saa ne. le soleil. le soleil wax euh, ci OMS di organisation mondiale de la santé nee na ñuy wéy di jël dose bi di AstraZeneca ndaxte daal euh, bari na ci ay réew yu ko dingatoon wan ko ginnaaw du muyu ko Sénégal nag euh, dëgëroon bopp waaye dafa na ne gaa yi wéyal di ñàkkoo lii di AstraZeneca di wéy di jël seenu ko dose ginnaaw ba ñenn ci askan wi gisee ni daal AstraZeneca mun na doon saafara bi jur jàngoro waaye OMS nee na déedéet da leen naan seen doos observateur. observateur wax ci ori wax ba léegi ci mbiri Adji Sarr ak Sonko mu ne li jëm ci wàllu yoon ak taxawaay bi mu waroon am ndaxte bu ne Sonko waratoo wax ci dossier bi léegi ñu may aji moom mu cay wax est-ce que yamale ci wàlluk yoon am na yéenekaay groupe Futurs Médias bi def ci gëstu def gëstu lu am solo mooy horrible champ des mines maanaam ndel yi lor ak di faat wala muy sax dagg cëru yenn ci takk der yoo xam ne ci tooluk euh, xare la ñuy daanoo te la leen di daanal du lenn lu dul am ndell goo xam ne dañ koy jóge mu dagg seen tànk wala seen loxo wala sax mu faat leen bi ci mujj rek mooy agent GIGN bi di Mohamed Ka moom nag daal ginnaaw ba muy tiré ab lacrymogène ca la mbir ma tàkk ci loxoom ba mu ñàkk lii di loxoom ñett ci ñooñu nag laaj na leen nan lay dundee seen laago yooyu le tontu nañ ci gars yi Youssou Ndour yi. Euh, la turbine euh, wax rek ci mbir mu doy waar nag mbir moo xam ne dafa mel ne bal bi moo tourné ndaxte nag euh, kii di ab takk der la doon daje ak ay bandi waaye bandi yi mujj nañu fitnaal lii di takk der ba mu mel ne rek takk der ba daal dafa mujj a sàqi les échos les échos ne daf ci mujj a jële sax ay damm-damm rawatina ci loxo bi waaye tamit lii di ngànnaay la mu yoroon danu ko nangu ca moom libération libération wax ci ñetti marin chinois ginnaaw euh, ba ñu euh, yëkkati ab fitna teg ko ci ab nappkatu doomu Sénégal ci géej gi ñetti marin yooyu lee teg nañu leen loxo ñu ngay lijjanti seen biir di xool lu tax ñu doon gan suñuy waax ba léegi ba noppi di fi yeewu ay bëy la mandat le mandat wax rek ci ñokkolo koba mu ne doon na lu ñu agressé maanaam àll boobu salfaañe nañ ko rawatina braconnier yi mu yéenekaay bi def ci criminalité phonique maanaam ñi nekk ci biir àll bi te doon ay band yoo xam ne à chaque fois dañuy dagg garab yi waaye te teg ci yenn ci mala ya fa ne te ñu warul leen sàmm te mu doon suñu patrimoine nan koy agressé ci la yéenekaay bi di la mandat def gëstu bu yaatu réew mi réew mi wax ci enquête goo xam ne rek dafa ñeel lii di pomme de terre lu Omar bëgg lool rawatina buñ ko frité waroon ñu baxal ko <laughs> tànn sa bu la neex la mu ne le difficile écroulement des bi maanaam pomme de terre bi maanaam denc gi ak lamb gi muy lamb fii ci mu réew di Sénégal ginnaaw ban ko fi defaree waaye ginaaw ba fi ñoree loolu nag moo tax yéenikaay bi def ci gëstu ak lamb googu la lay jur mel na benn pomiteer moom bu yàqu rek mun na yàqu yu bëri kon nan ko gaaw a jaay balaa mi lamb. stade. Euh, stade wax ci sànq la nga doon wax ak Jibril Niang di Bayern ak City ah gars yi nee nañ ñu ngi koy rêvé de ah mu doon jongante boo xam ne gënulu seen supporters yi ndaxte punkal dina daanu beneen bi ci topp mooy Real ak Chelsea ah te très fort ah, te Real moom dafa dafa mën bis nag rawatina Ligue des Champions bu musique bi dawee rek day mel ne ku leen di xabtal waaye Chelsea jamono yi dynamique de victoire la nekk ak kii di Thomas Tuchel waaye nag man sama équipe Paris Saint-Germain la nanu am bu nooy nooy ngir ñu mën a jàll suñu lamb am euh, a Sène ak euh, kii di euh, Lac de Guerre numéro 2 sunu làmb jox kàddu Max Margan ne combat wu 4 avril boobule Eumeu nag lan mooy force mooy dafa complet maanaam dafa mën ci biir boor mën ca bee bu dee nag Lac de Guerre numéro 2 ñu ne moom dafa coriace maanaam dafa am safara. Hmm. moom kooku lee di Lac de Guerre numéro 2 combat boobule 4 avril lay doon waaye nag du doon combat bi géey ndaxte comme bis ni ki tey ibbi nañu ngir gars yi mën a fekkee lamb yeeg nañuy yëngoo ak public bi. Hmm. dafa mel ne rek lamb ji dina sajaat le 4 avril diggante. kii di Eumeu Sène ak lag de Guiers numéro 2 sunu làmb dellu si waat Omar yow kan mooy sa équipe. man maa ngi Paris ici c'est man ici c'est Paris. ah Euh, Barcelone daal moo nekkoon sama équipe waaye daal. Euh, sama beneen équipe mooy Real. Euh, loolu tax Real ak Paris bëgguma ñu daje. Eh, équipe moom benn rek nga ci mën a am nag sëñ bi. <laughs> équipe moom benn rek nga ci a. non man j'aime les galactiques maanaam Real ak Paris ay galactique lañ. <laughs> am ñoom bu ñuy recruter ay ndaanaan la ñuy ñoom ay galactique la dama dama bëgg galactique yi ah. jaajëf mais waa moom ña nga ña nga Barça. <laughs> Barça Barça. Ah, jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di a